salaamaaleykum internetu Sénégal alors tey ñu dalal fi euh, Sanékh Cheikhou ci waxtaan ak moom ci lu bari bëggoon nañ ko waxtaan bi lu yàgg lu weesu lii fi xew lu mujj di ak Baye fal bëggoon nañ toog moom waxtaan ak moom ci lu bari ci affaire théâtre et tout ma bàyyi ko mu nuyu ak fansam ñu koy seetaan. Euh, Aïda maa ngi lay nuyu di nuyu internetu Sénégal di nuyu waa Sénégal di leen ñaanal yàlla jàmm ak tawféex ak wér ak gudd fan barke. ak mucc yàlla musal leen ci lépp luy lore yàlla musal leen ci mbas mi musal leen ci accident yi bëri na euh, ñi nga xam dañoo génn àddina ci accident yeeg ci mbas mi yàlla leen yàlla xare àjjana mm-hmm. te may seen mbokk xalu muñ euh, yàlla na yàlla def ci senegal jàmm defal ko ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp di ñëpp fépp fu ñuy àddoo ñu ñuy teewlu rek ñu leen nuyu bu baax a baax. Mhm. ñu commencé ci mbas bi sax peut-être nga laal ci un peu est-ce que vacciné wu na déjà. waaw man vacciné woon naa bu yàgg. vacciné naa mais mhm. temps wu deuxième yi nga xam ni ñaari doses yi la woon. Mhm. man vacciné wu naa à Thiès depuis depuis longtemps def naa sama ñaari vaccin yi pour pare wax. ba sonalu leen ci tournage beeg yooyu mbas bi. Euh, si si si na lu bëri bëri bëri bëri laal na lu bëri bëri bëri ci sunu sunu sunu économie ci sunu wàllu kopp koom-koom ci tournage yi. et tout mhm. ça waaw. d'accord mais comme que yàlla noonu la ko bëggee tamit euh, dañ koy muñ rek te sant ko waaw. Mhm. alors balaa may dugg ci actualité bi choix. comme ni ma koy laajtee sama sœur tamit chaque jour lundi vendredi mu ne choix amul choix amul euh, est-ce que saison 1 bi dafa jeex est-ce que yéen a ñëwaat. Ah, waaw waaw waaw ñu ngi ñi ngi ñu ngi ñu ngi ñëwaat ci choix ngi ñëw ñu ngi ñëw beneen cinquante deux épisode euh, scénario bi c' est c' est presque fini mm-hmm. ñu ngi def découpage yeeg yooyu ak euh, kii xool euh, nan la ñuy wutee décor yi et tout ça ñu ngi ci parfaitement mm-hmm. pour xool artistes yi tamit nan la ñuy revenir waate en force Mhm. parce que gis nga première saison bi ñu bëri génnuñu ci parce que Covid bi daf ñu laal y avait beaucoup de problèmes pour mhm. que artistes yi jógee ak Thiès ñëw jouer si y problème ñoo xam ni bon vraiment sponsors yi ñëwuñu ni mu war a ñëwee cachet yi demeewul ni mu war a demee mhm. il fallait ngay jël ay nit ñoo xam ni fii lañu dëkk biir Dakar moyen de transport bi du metti pour ñu loger leen et tout ça fii aussi <clears throat> da doon doy waar Euh, impacté na lu bari bëri bëri ci sunu liggéey Covid bi lu bëri bëri. Mhm. moo tax sax ñenn ñi defe nii bokkuñu ci ñenn ñi defe nii dañoo dàq ñenn ñi wala bokkuñu ci fekk nii bon voilà euh, mbiru Covid bi la mais ñi ngi ñaan yàlla te am nañu yaakaar ni bu ñuy ñëwaatee ça va être euh, plus bien ci wàllu artistes yi ak ni ñuy ñëwaatee et tout ça yal nañu ko yàlla defal. mais est-ce am ngeen ci satisfaction. ci nit ñi du ñu ñëwee xamoon leen ci wiir wi di ngeen ñëw indi beneen série bu bees. bu fekkee nit ñi bëgg nañ ko te neex na leen te ay jëlee nañ ci njëriñ rek ñun on est satisfait. Mhm. te d' après yi ñu am c' est c' est c' est vraiment magnifique parce que beneen histoire la bu bu wuute ak euh, ak wiir wiir yi. waaw beneen histoire lii c' pour man moo moo moo ëpp doole wiir wiir. d'accord soleil levant ñu xamee ko troupe boo xam ne bu yàgg la boo xam ne bu suudee la acteurs yi ñëpp dañuy bëgg a bokk ci soleil levant déjà parce que qualité ngeen di produire et tout mais di am des fois ay ay ay ay wax yu sew comme récemment gis nañu Baye fal mu génn mu ne dafa gumba ah te mu bokkoon ci yéen ci wiiri wiiri tourné ak yéen ñu xàmmee ko ci yéen ngeen jàppale ko tamit mu tourné ñu xam ñu xam ko bu baax public sénégalais yi xam ko léegi mu ñëw ne dafa feebar déjà ma doon laaj est-ce que yéen yëgoon ngeen feebaram. bon fu may njëkk a tontoo mooy soleil levant wax yu sew ñun defe naa ni bokk nañu ci la troupe yi nga xam ni. Euh, <laughs> on n'a pas trop de détails mm-hmm. mais wax nag kër goo dugg ak secteur bu mu mënti doon. du mm-hmm. lim parce que boo limee am na ñoo xam ne dañ ci gis seen bopp euh, coow li am mhm. coow daal di am secteur yëpp nag amul secteur booy laal ci àddina mhm. te kër ga amul coow mais euh, tilim tilimu biir kër ci biir kër lañu koy fóote loolu mënta ñàkk fu ay mhm. nit di daje ku nekk ak sa jikko ak ku nekk ak sa xalaat foofu wax yu sew yi am mais ba léegi tasul ba léegi taxul troupe bi tas ba léegi taxul ñu am problème xaalis ñu dégg ñu ci ñu ciy xiiroo ak ŋaayoo ba léegi amuñu problème boo xam ni wax dëgg yàlla problème majeur la boo xam ni adduna nit ñi dinañu tax seen gémmiñ ni ah ñii ak amoon nañ fi ay temps wala nangam ñi ngi suñuy dynamique ñi ngi ci suñu ay film cinéma euh, pare nañu benn film ça fait pas longtemps en anglais ñi ngi suñu yeneen ñi ngi suñu yeneen film di ko def ci yeneen plateforme voilà ñi ngi sant yàlla li li daal Baye Fall est-ce ngeen ko. non non. yëgoo leen ko. de ko dafa feebar. Euh, gars yi bi ñu ñëwee di def interview fii. Mhm. naa leen samay lunette man parce que il ma wone ko bàyyi ni mu miyoobee man noonu laa miyoobee ah samay lunette mi ngi nële ci ci table mhm. amee ñun ay doomi yu am ay handicap. sunu ay doom ci biir troupe bi noonu la amee ñu feebar ci biir troupe bi di faj seen bopp ñu feebar ñu feebar ah te ñu ngi faj seen bopp ñun mio bi Baye Fall ñun ñëpp xamoon nañ ko comme man ni muy mio bee di ñëw tournage di takk film di takk lunette bi muy tourné Ngéwël Central yéen da ngeen di am ay archive demal nga tàppe Ngéwël Central di nga gis ni sama bët yi dafa def ay ay taab gisoon nga ko gisoon nañ ko très bien loolu la myopie ngeen ko jàppee woon moom la man maa ko am sama ay ah, gu waaw mhm. man maa ko am waaw gisoon nañ ko ci gisoon nga ma am sama bët yëpp neewi waaw sama ay goos bi dafa am mhm. problème moom ni sama amee problème ni ay bëtam amee problème soleil la ban fajuma dafay jaay ay motom ak terrain am pour faju man damay jaay sama oto ak samay terrain di faju man kenn faju ma ñaanu ma ndimbal fenn kenn faju ma man dama am sama ngor toog di faj sama bopp ni Aziz di fajee doomam di ci def ay million ni Cheikh Ndiaye di fajee boppam bi jabaram dee am ci métit feebar ci lool ni Ndey Kumba amee arthrose di ko faj ni ko amee goitre di ko faj ak keneen ak keneen ak keneen du bàyyi rek a feebar ci troupe soleil levant mais xëy na moom moo ci am xelum génn ni kenn dimbaliwu ma Aïda mm-hmm. li as gor di dunde yàlla bu ko saay-saay xam ñun on n'est pas ñu milliardaires ay waliwu yàlla moo xam lépp mën lépp mate fépp tabaski jii ñu génn am na ñu ñu gën a gëm yàlla dàq ñoo julli gën ñoo maanu te yàlla mayu leen naru yàpp bu ñu lakk te ñu ngi ci toog ci seen gor te bu neexoon yàlla mu wàcc leen téeméeri xar amul mhm. bàyyi na sant yàlla te fii yëf war a jaar mu jaarale ko fa sama maam daf ma doon wax ni ma boo dundee ci àddina boo waxee dëgg da ngay dee boo fenee dangay ngay dee waxal dëgg te dee boo jubee dee boo dëngee dee waxal dëgg te dee waxal jubal te dee boo turiyaawee ba ngay dee boo jubee da ngay dee jubal te dee man duma fen mukk ci àddina lu ma la wax dëgg la bàkki Cheikhu Tidiane man lu ma wax dëgg la duma fen wallahi lazim du ma fen Baay Faal bokkul soleil levant feebar na am myopie xam nan ko yëg nañ ko mais quant tollu na ba ci gumba na démb lañ ko yëg ñun musuñu ko yëg musuñu ko naane ndox billaahi wallaahi ko naane ndox ayda mm-hmm. àdduna ak may seetaan ñun nit ñi ñu faj ci ay nit dimbali ci ko ay ci ay nit ñu jëlal ñu en charge ci ay nit ëpp na téeméeri nit te kenn yëgu ko kon du Baye Fall mu nekk soleil levant mooy am problème mu bët ba gumba ñu di ko seetaan du d'autant plus que la koy faj ak la koy jël en charge jógewul ci sunu poos li la koy firndeel mooy démb rek bi mu waxee ba pare ki yor programme national bu ophtalmologie Macky Sall dénk président Macky Sall dénk na ko woo na fondation Lonase woo nañ ma pour jël ko en charge Mbacke Dioum benn docteur libanais bu nekk wetu ministère des finances woote na fa pour ñu jël ko en charge ñun mën nañoo soxor ak iñaan iñaan ku toll ni yëgal loolu bàyyi Fall te duñ ko ko defal Baye suma xarit la man sama grand frère la dafa bokk ci ñi tàggat tàggatuma ci wàllu aar de ci wàllu wàllu àddina affronté àddina ñambe seen moo ma daan jàpp ci loxo yóbbu ma atelier bàyyi faal ma toog fa naan fa attaaya ba heure répétition jot ma dem répété boobu damay théâtre di ko nëbb bàyyi sama xarit la bàyyi sama confident la bàyyi sama nit la heure bu ne dugg nañ ko sunu tool dagg mango sama toolu maam 23h 10h ci guddi 9h ci guddi toog ci buntu kër gi lekk mango taalaat moto bi sax maam naan ma borom rasta yi ngay àndal ak moto bu mag bi fu ngeen jëm ma ànd ak bàyyi. 250 épisodes mooy wiili wiili deux joué na ci 200 épisodes yi bu ci ne salaire am mësta tardé démb nga toog fi àdduna yëpp toog ñu amee la salaire ñeenti at di la ko fay. mësta tardé nga ni lañ ma doon fay ci ñaari fan laa ko doon lekk ñeenti at nga xam ni weer wi boo ci liggéeyee doo liggéey deux fois ci weer bi wala trois fois ngay liggéey ci weer wi ca la yam liggéeyoo chaque jour. chaque mois ngeen ko fay. chaque mois ñu fay la cent soixante quinze mille lañ ko doon njëkk a fay salaire yi yokk ñu fay ko deux cent mille francs di ko ko fay ñeenti at te bokkul soleil levant nga jënd ci dëwlin ba tàyyi jënd ci ceeb ba tàyyi faju ci ba tàyyi nga ne mënuma woon jëliñ dara ne rek daan nañ ma fay taxawu nañ ma guddi taxawuñ ma bëccëg mais maa toll foo xam ni damay ñaan ndimbal te mënoon na caa bañ a àgg bàyyi ni muy amee yitte woo ma parce que bàyyi du xaritu Aziz du xaritu Cheikh Ndiaye sama xarit la man maa ko dugal soleil la ma man la xamanteel ni muy amee ay yitte di ma woo téléphone dox ba ñëw suma kër seetuma ñu diisoo li may diisoo ak moom mu génn ma gunge ko mu dem bu ñëwoon diisoo man ni ma alaaj seexu ma ne ko naam mu ni ma veer yi mënalatuma dara lunette yi téyetuma docteur bi léegi nee na àgg naa ci ni dañ maa war a opérer wala te France laay wala dañ maa war a opérer du fa jóg te envoyé wu ma ko message gis nga Youssou que moom parce ma ma dagg la tuuti foofu laaj nañ ko. Hmm? mu laaj nañ ko. Hmm. mu ne yow danga daan jël sax di ko dàqante pour xamoon nga ni ne feebar na. man mi waaw. dangeen ngeen nekk tournage sax nga koy tooñ di daw ci salle bi pour mu xool nga mu mu repérer la quoi ci salle bi donc kon yëgoon nga feebaram. man la wax waaw. waaw kon loolu. bien vrai que li wax nii loolu la wax. genre rakka rakkam nga yow am nga sañ-sañ ci moom oh, mais nee na feebar bi yëgoon nga ko non non non non non non non dund wax dëgg dee wax dëgg mhm. waxal dëgg te dee dama ciy ñëwaat bàyyi yëgoon nañu ni te moom xam na ko ni am na myope da doon takk ay verre mais bàyyi gumba na démb lañ ko yëg amul woon problème tournage problème mu. tournage mu toog di tourner après bët yi dem mu fulu. mais comme ñun ñëpp. Mhm. man déggoo man la tourné naa sama bët yi am ay taab. Mhm. ñi mi am problème mu tournage man tey jii bu ngeen fi jógee nii seen seen seen lampe bi. fi mu toll damay am problème. il faut ma toog tuuti wala il faut fu ma nekk damay wàññi lumière yi est que tax na ma koy wax fu nekk mais dama ni la moom. àggoon na ci takk ay lunettes te bu tokkee lunette am yi gis ñun ñoo ko tax bàyyi jëlal sa lunette yi nga takk ko bàyyi bàyyi kii mën naa ko bàyyi man ak yow a yem sunu lunette yi mooy sunu bët te dafa dee ko takk mun alaaj seexu man fu laay sànni sama lunette moom dem na ba moo ñuy tooñ sax ñu damaa jël autoroute bi jaawale ko damay eh, bàyyi sii dee may wan fi may ak nangam nangam dugg na fi génn fi di ko sabotee boppam di ko tooñ mais li ñu metti mooy li mu ne ñun dañ ko daan saboté ci loolu xanaa ko ñun ay nit ñu bon ñu xaraam lañu Baye fa li mu wax dafa dafa daray àddina jaru ko. parce que man laaj naa ko nekkul solo le vent warul la jël prise en donc plus que. ñun duñu ñu mu ne yéen da ngeen ko waroon ñëw nemmeeku xool ba xam. exactement ñun duñu société. Mhm. amuñu prise en charge médicale. fan la ñu bind ne bu bàyyi faal feebaree ñun ñoo ko war a faj wala ku feebar ñun ñoo la war a faj mais nag séq nga ak nit ki loo xam ne bu feebaree dangaa war a taxaw ah ci boo ko yëgee déggoo ma ne la xanaa da bëgg ma waxaat ñun feebaru bàyyi faal. ci ni ci ni dafa gumba. Mhm. laa wax ba mu yóbbee yëg nañ ko. Mhm. ci ni dafa gumba démb lañ ko xam man kay loolu laa wax man rakkam laa. xaritam laa. Mhm. xanaa kay balaa moo génn ci audio yi ci ci ci eh, internet bi di wax moom xam na sama kër li mu fa daan def ba di fa dox ay bagaasam di ko fa wut si ci jàmm di dem ñuy diisoo maak moom suñuy diisoo ah di càbboxi suñuy càbboxi noonu mu koy woowee ah waaw di wëlbatee ka tërala ka nangam ak sàngam di lijjanti suñuy gàmm lijjanti suñu problème diisoo suñu diisoo ci diggante mag ak bu ko defoon ni ma bët yi weesu na ay lunettes léegi ci gumba laa toll mu xool ndax dinañ ko jël wala duñ ko jël sànq dama commencé di wax tudd Youssou Ndour bu ma ko àggalewul day mel ni dara. bu ma ko envoyé message une minute balaa muy mat une minute ma koy envoyé message balaa muy mat une mu tontu ma wala mu woo ma ni ma allo ça qu'est-ce que je peux faire pour toi. ma ni ko nangam ak nangam ak sàngam grand bu dee bu waxee nag mu ni ma noo téléphone la ñu nekk ñëwal kër ga wala bàyyi dinaa am ku ma la booleel bu coupé rek kenn woo ma ni ma yuusoo ñu boole nangam nangam nangam kooku rek mën na maa jëlal Baye Fall en mm-hmm. te sunu xaalis du ci dem ki yor plan ki yor programme national ophtalmologie mën na jël Baye Fall en charge d'ailleurs woo ma ba laaj ma numéro jox naa ko ko waa Lonase woote nañu jox naa leen numéro Mbacke Dioum jox naa ko numéro bi soxna si ki ngay faj te sa dara demu ci lu dul sa coup téléphone coup téléphone nii allo nangam nangam. parce que ñu bari yow la ñu interpellé. man lañu ñu interpellé parce que ma damaa weex dunq rek damaa weex dunq rek. est que di nga nekkee directeur artistique. moom ma soleil la waa moomu ma soleil levant mais loo gis rek am na ko ñuy tudd mais ñu ngi tudd ku baax ñu ngi ñi ngi tudd ñu ñi ngi tudd ñu baax ñi ngi tudd ñu mën a sonn ci yëfi nit ñi ngi tudd ñoo xam ne li ñuy régler ci réew mii te kenn yëgu ko bari na xam naa ne ay nit dinañu fipp wax ñun li ñuy def ci réew mii ci dimbali ay nit man ma dox sax nit dab ma dab ma ni ma xam nga xale bii ma ni xale ban xool ko ne déedéet mu ne ma kii yaa ma dim yaa ko fajoon ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen Aziz day jékki-jékki rek ñëw woo ma mag Cheikh Ndiaye ni ñu bon lii moo fi ne il faut ñu dimbali kii kii nii kii nii kii nii ñu xool ni qu'est-ce qu'on peut faire mu ñuy cotiser ñun ñett ñu cotiser dimbali ko bu ñu koy jël en charge keneen jël ko en charge ñu boole ko ñeneen ñu jël ko en charge ñu dëkk ci loolu lañ dëkk kenn xamaluñu dara lu dul loolu. léegi nag quant dañ koy def di yanu ay caméra di ko filmer duñ ko def Baye Fall xam lu mu def dañoo ubbi gémmiñ ci sol ci lekk mu lekk bu suur li ci des yàbbiwu ko suturaal ko mu burusuwaat ñu ko kon démb vidéo bi bett na la trop venant de lui dafa saagalu sunuy jabar saagalu sunuy doom saaguluñu xasluñu te sénégalais ñenn ñi li ma gën a metti ci ñoom xamuñu fekkewuñu yëguñu tinuñu dañuy gis kenn wax rek ñu saaga ko ca des xam nga di ñeme yàlla weesuwul loolu ñeme yàlla weesuwul loolu xamoo saa neex lu dul ci tele bi xamoo Baye Fall lu dul ci tele bi gisu leen lu dul ci télé bi xamoo la ci troupe ba xamoo lu ñu séq ak moom xamoo nu mu demee xamoo ndax yëg nañu u yëguñu xamoo ci dara yow daal saaga ndey rek moo la ci intéressé ak xasak ak ñii moolu ñook nanga mag dugg na fi génn fi Baye daf ñu wor daal. Mm-hmm. wor nga ko daf ñu wor daal daf ñu wor daal wor dafa dem àndul ak sagoom rek mu waxalul mu wax ay bêtises rek quoi war rek loolu laa ko tuddee. ce que yow sa esprit de dépassement woo nga ko démb vidéo ba mu génnee pour ko. tant dafa feebar neen. woowu ma ko woowu parce que saa neex lañ gën a xam saa neex autorité la mën nañ ko wax ci dëkk bi parce que fu foo génn dinañ la nit dina taxaw nuyu la am nga si ay relation comme comme comme ni ñu ko waxee sànq. donc est-ce que tollu foo xam ne tamit da ko war a jàppale te yàlla tax rek. mu faju ko a jàppal. yàlla tax mu faju mais déggoo ma ne la ñuy woote ñëpp di ko jël en charge ëpp nañu kat ñu ay nit ñu am doole la ñu déggoo ma ne la ki yor ki yor plan plan plan ki yor plan ki yor programme national ophtalmologie yi. ñooñu ñëpp da leen mettre en rapport ak ñoom ñëpp woote nañu ba ci waa LONASE woote nañu seen fondation bi ñëpp woote nañu. kantaan nag dafa toll ci ay dem France ak yooyu yàllaahu la moom moo ko xam. mais ah, parce que nee na mënuñu ko faj lu ñu mënta fa ah moom moo xam man yëguma indi lu ma këyit wanu ma yëgalu ma dafa jékki-jékki rek xas ñu. ñun liñ ko daan fay ñaari fan la ci daan dund nañu wax ñaata ñaari fan la ci dund ci ñeenti at ñaata ñaari fan la dund ci salaire boobu na ko dajale wax ko sénégalais yi. même munoo cee faju ñun ñooy faj suñu bopp ñun amuñu prise charge médical da ngay théâtre yor sa atelier di jaay sa ay pneu loo jaay def ko ci sa poos parce que mës nga ñu cee jox ni ñu faju leen wala am leen dépense ñun dañ la daan bàyyeek ak sa atelier ngay jaay say pneu ñu jël sunu cachet di la ko jox soxla nañ la ak soxlawuñ la joué nga ak joué woo parce que soleil levant nga joué ak nga ñàkk a joué dañ lay fay. Mm-hmm. bu série amee nga joué wiiri wiiri noon la woon nga joué ak ñàkk a dañ lay fay loolu la. Mm-hmm. amul mois bi génn nga kii série bi génn ci mois bi tourné wul parce que ci mois bi lañ daan tourné. ah parce que mosuñu leen dégg affaire xaalis. déedéet déedéet doo ñu ñu ci dégg ay soleil levant parce que man maa ko yore choix bii rek. la xaalis awul sama loxo pour ma fay artistes yi choix bi kese ba soleil levant des soleil levant ba léegi mbiru xaalis maa koy fay te duma ko fowe dama naqari deret je paye damay fay producteurs yi ma darak nit ñi ma xam ñëpp xam nañu loolu ci man du du je paye damay fay xaalisu artistes yi man doo yëpp sama doom ndax sa bàyyi daf maa amel ay cachet déedéet man li ma dirigé bokk yoroon ko moom baay Fall xam na ko nee ko ndax Cheikhou mës na laa ameel kase déedéet la lay wax parce que ñemewul parce que bis bu nee man ameel naa ko kase man ci wiil wiil dama ko yóbbu ak confrontation ñu taxaw mu wax ma ban mois laa ko fayul ak kañ laa ko fayul rek bàyyi da juum suma mag nga suma xarit nga mais da nga juum. erreur bu mag nga def yellante koon ni ñun yellante koon ni li Baye Fall di wax yépp dëgg la Baye waruñoo weer ñun même bu doon dëgg la li tilim ci néeg bi nañ ko fóote ci néeg bi ndax Baye yow bu dee benn fan sax tibb nañ ko lem saxal la nga bëgg lool taxaw fu ñu te bàyyi dafa def loo xam ni kuy nit war nga ko ragal. bàyyi dafa taxaw fu ne tagguñu. démb mu ni daf ñu daan tagg parce que loolu rek la mënoon a def daf ñu tagg xas ñu kon bàyyi ba nit la moom ñaar yooyu ban la ci. parce que sa maam moo ma waxoon ni ku la tagg tey xas la suba laaj ko ñaari ban la ci. est-ce que jaaxalul jaaxlewul rek. déedéet déedéet déedéet bàyyi moo ma mag te maguma nànk sax ma mag bu baax te man rek paalaa dootuma ko ne nit lu muy wax da koy mesurer tàggat ko xam ne ñu ngi lay seetaan nga koy woddu bàyyi dafa séq lu tax bañ ko doon fay salaire am pendant quatre ans génnul woon def conférence de presse ni ñi ñi niñ may fay rek musu la taxaw ak nit fii soleil la vent nii la sama bët yi jéggi na dayoo dañ maa war a opéré billaahi wallaahi taalaahi démb laa ko yëg bi mu defee sorteem laa ko yëg moom bu ay nit nag influence woowu tamit jotu leen déedéet non non ma woowee daf may jot xam na sama kër daf fay ñëw woowu leen jotu ma su dafa sequ kook ñoom sax man la ko seqal fan la ko seq ak ñoom bàyyi Aziz du xaritam Cheikh Ndiaye du xaritam man maay xaritam man maay rakkam man maay confident am man la ko séqal te xam na ni man man man lu ma bëgg soleil levant dinaa ko am neew ma lu ma bëgg ci réew mi am ko nag waxuma ko ndax man aw ma lépp waaye yàlla sunu borom suturaal na ma ba nga xam ni lu may doxal ay nit ñu bari yàlla dina ma ci defal sutura ma dox mu am ñun man ak Cheikh Ndiaye ak Aziz lu ñuy dox lu bari ci mu jëm ci ay nit yàlla def ñuy dollu sutura loolu sotti ba nit kooku am li mu bëgg passeportu Baye Fall bu ñu juumul bu ma juumul mi ngi ci Cheikh Ndiaye ba léegi wala nga xam ne bii ma ko ko dellooyee yàggul déposé nañ ko sax ambassade bu France parce que dañ doon déposé ñu ñëpp dem def tournée ñu rejeté ko ñu rejeté ñu tournée bi mujj ñu ko def kon kay kooku seetaanuñ la te boo ci bokkoo ci troupe bi de bokku ci de. dañ ko invité woon ci Wiri Wiri mu ñëw Gési il faut ñuy arrêter di di salir les bonnes personnes là réew mi fi mu jëm baaxul ku mën a am moyen wu yàq sa moroom rek yàq ko ku am moyen wu détruire sa moroom rek détruire ko et nañ arrêter di victimiser wu di jooy rekk di jàmbat rek. di jooy rek pour nit ñi yërëm leen di leen dugalal ci Orange Money yeeg Wave yi rek nga jàpp deru nit yàqu ko ba mu yàqu ñu Orange ne la wala ñu Wave la nga koy lekk yow boo koy lekk war nga xalaat ni sax ci yàq der laa amee lii Baye Fall dafa yàq sunu der complètement Baye Fall daf ñu détruire yàq sunu der complètement addunaa ngi ci sunu kanam ak moom kon tey seen collaboration jeex na. wóoru ma. wóoru la. man mhm. ngeen recoller morceau yi. du xamuma xamuma ki yóbbu kër chef de quartier yóbbu la police wala mu yóbbu la tribunal wala mu tëjlu la kaso wala mu weer la bokkatul ci yow lii mu ko defee nii bokkatul ci yow. génn na boppam moom moo njëkk a génne boppam ci ñun ñun teraanga rek lañu ñu mës a seq ak moom na génn weddi ko weddi na ko démb sax parce que luñ ko mës a defal ci lu baax rek sëkk na ci lu bon luñ ko mës a defal ci lu baax et ay xale yu ndaw dar la naan nga naan ñoo damm sa loxo dañoo damm sama loxo mais naruma woon a génn na xaar tamit ñu ëllëg si biir ñu waxloo ko leneen mu waxaat leneen mais du doon fii. na waxaat lu ne na génnaat jëfaat lu ne benn wax ji li ma ci jot wax nii ci journée tay bii yëpp ci Baye Fall laa yendu di ci wax. Mhm. ak journaliste yi moo jël sama temps parce que il fallait ma reela ko leeral du dindi du ragal dindi tuuma la. parce que ñu bëri ñu ngi ciy dugg ñu naan sa tur mooy njëkk a feeñ saa neex sa neex donc nit ñi ñu koy soutenir xamuñu histoire bi exactement nu mu demee donc c'est important. nga leeral la yàlla na moon ci man xëy na. Mhm. la yàlla na ma ci man. ci timis bi rëcc na ma. rëcc na ñun ñëpp. peut ñu tëjee fenn foo xam ne rek actualité la mooy taalibe Cheikh nga gis na gis nga photo sëñ Babacar bi bu ñu bu ñu vandaliser temps yi bien vrai que Tidiane yëpp jóg nañ defal seen photo bu ko yóbbu foofu lan nga gisee genre Sénégal mu dem ba yooyu di ci xew. sëñ Babacar si dina ko fajal boppam amul werante. mais bi ba nga ko gisee nu mu la def. duma ci wax dara. doo ci wax. Mm-hmm. yu bëri duma ci duggati ci si Sénégal. Mm-hmm. loolu ñoom la ak sëñ baabakat si man fi ma toll ci sëñ Babacar si kenn du ko dindi maa ngi fa toll ba léegi. Mm-hmm. fi ma toll ci yàlla ak yonent bi maa ngi fa toll ba léegi kenn du ko dindi xam nga man yu nit di def ak di ko wax. intéressé wu ma ci yu bon yooyu ay saaga ak ay wax yu bon ak yooyu man duma ko déglu intéressé wu wax naa ko ci sama benn théâtre xam nga lu ma intéressé li ci sama xol bi dama xam ni lu set la lu pur la dafa am benn ñaan bu sëñ Babacar si joxe woon ni yonent bi da ko daan ñaan ma dégg sunu ay njiit talibe cheikh daal di koy joxe ci benn conférence ñu ni boo bañee gàcce boo jullee fajar ba julli suba nga daal di def faatiha ak salaatul alal nabi boo mën mm-hmm. ak ñetti xulwa xulwa bu nekk ànd ak bisim bismillaahi rahmaani rahim jiitu ci nga ëff ci sa doq yàlla mën na laa musal ci gàcce àddina ak àllaaxira dama ragal gàcce ba du bu ma yeewoo fajar bu ma jullee suba dama koy def boo jullee suba ak timis nga koy def dama koy def ay dama bugguma lu bon xamuma ko sax théâtre nag nii laa ci mel kërëb kërëb ci ku fi defe ne kii nii la mel dans la vie du ma génn sama kër gis nga match nii ay seetaan toog jàpp sama waxtu julli jot ma dem ci sama sijaada julli wérdi sama wérdi toogaat jàpp sama jàpp tooñu ma kenn wóoruma di ñaan kenn tànqalu ma kenn fitnaalu ma kenn xanaa koy gis ngay fitnaal wala ngay ngay man kenn gisuma wóoruma tambaal mbala wu ma taxawaalu ñun suñu kër yi ñun ñëpp la ñu toog Aziza nga cees toog jàpp ñàmburam Cheikh Ngaye ngi ci këram toog jàpp ñàmburam maa ngi sama kër toog jàpp sama ñàmbur lu ñu waay waxal rek da nga ñoo tooñ te ñi ciy wax ñëpp ak di ci commentaire billahi wallahi wa taalahi dara wóoru leen ci ba ci ñaari booy yi toogoon ak euh, Baye Fall seq ko noonu amuñu ci dara lu leen leer parce que Baye Fall waxu leen dëkk as góor du doxalee noonu. Mhm. am na ñu ma woo ni ma dégg nañ ñu Baye Fall wax ma expliquer leen ñoom tamit xam nañu li ma leen wax man Sénégal ñi baax ñi laay déglu ak ñiy wax lu baax laay déglu man du ma déglu waxkatu lu bon mhm. duma la sax xool man Sénégal ñiy saaga ndey ak di am naa TikTok de. Mhm. Faa Aïdara ma ko ubbiloon bi may def sama film cinéma boobu. bu ma defee nii bu ma leen gisee sax ñooñu damay fël nii sama baaraam bi nii laay def lu ma la sax xool man ñi wax lu baax lay déglu du ma déglu ñuy wax lu bon parce que ça te avancé lu ma te bu ma wéroon ni Baye Fall lu bon loolu lay wax du ma ko déglu Aïda dama ko gis niñ ko tiitree. fa dekk nga xool. tiitree wuñ ñu ci quoi. dañ ñu ni Baye Fall mi ngi gumba dama tiit ma seetaan ko fekk maa ngi reer damaa suur reer démb ci añ laa gëj lekk ba léegi sama jabar màngo la ma daggal léegi moom laa doon lekk je suis effondré Baye dafa yàq sunu àdduna quoi daf ñu bett daf ñu il nous a poignardé quoi parce que mosuñoo seq ak moom bàyyi dafa mel ni ñun dañ ko rayal taawam. est-ce que tamit frustré wul mu bokk ci choix tamit. mais daf ci doon bokk choix contexte bi la expliqué naa la ko rôle ma ngi ci. il peut pas quitter Dak euh, Thiès pour venir jusqu'à Dakar ci ak contexte yi sponsors yi ñëwaguñu woon y avait beaucoup de facteurs inexplicables c'est inexplicable nit ñi. ñi nekkoon Dakar c'était ay Kati ma koy gërëm il est il est il est Kati Kati Chimère père may ma jaaga extraordinaire père fay ci conditions yi ñu doon tourné conditions yu metti ñu accepté ko ñun ñëpp ay Vieba Ndey Kumba koo koo Binta gis ngeen ay quatre fois la ci feeñ. ay Ndey Kumba feeñu ci six fois. Mm-hmm. neexuñu mais contexte Covid bi. ak ñu toog bi bi wiiri wiiri jeexe ak pour ñu commencé waat ko pour mu décoller sponsor yu dugg fekk sponsor yu dugg nañu ci yeneen série nangam nangam dugg na fii pour ñu récupérer waat sponsor yi fale gis nga mais gis nga bi bi bi choix di jeex gis nga sponsor yi commencé waat nañu di dugg en masse parce que am na sponsor yoo xam ne dese nañ ci ay épisode dinañ leen ko àggaleel insha allahu rabbi du dëgg hmm. baay mënoon nga ñoo fayee neneen nu dul nii je t'interpelle directement bàyyi mënoon nga ñoo bàyyi tëddal bàyyi Fall man la Cheikhou Gueye tëddal yow rek ak yàlla ak yonent bi ak sa aqulaayu taala bàyyi nga nga nga sa digganteeg yàlla nga wax ni est-ce que ñun yëg nañ ñu yow da ngaa gumba bàyyi bàyyi tëddal ak sa aqulaayu taala nga wax ni ñun. dañ la daan saboté te saboté yi ñu la doon saboté lu dëggul la woon ci ñun parce que dañ la xeeb bàyyi tëddal ak sa aqulaayul taala nga ni waa la levant yi musuñu maa jir ngor après nga des yow ak yàlla dañuy dem de dañuy wuy ji suñu borom de te tout un chacun va répondre à ses actes tout un yal na yàlla def jàmm doolu sutura euh, te yàlla maa ngi lay ñaan yow mi nga xam ne yaa aji kawe ji yaa mën lépp yaa xam lépp yàlla nga ñu wéralal Baye Fall yàlla Baye Fall wér yàlla na Baye Fall wér bu fekkee ay gëtam dafa dem ba muuru te gisatul yàlla na ko sunu yàlla yàlla na ko yàlla sunu borom delloowaat ay gëtam ñun de luñ ci mën dinañ ko def luñ ci mën dinañ ko def te xam naa ni sax defe naa ni sotti na ci bisu tey bi te fa mu sottee yàlla ci sama loxo la ko awale parce que yonent bi ci sama portable bii laa toog nit ñi di woote fii may joxe numéro ci sama loxo bii la ko awale kon xam nga ni man bu ma ko yëgoon du agsi fii senegal nag ngeen baal ma ndax xam nga bu wax amee tontu am rek après coow li du fay mhm. day jógaat di jóg di jóg di jóg di ñàkk ndax dafa xaw a sew-sew da cee nekk boo xam ni ana saa neex ak Jojo ak Cheikhouna ba Baye Fall di ñàkki bëtam anañu fu ñu ne Sénégal dafa mën a def social mu seetaan yooyu yëpp dañ koy gis. Sanekh dafa dafa mën a def social bii mu seetaan élément am. buñ ñu Sanekh dafa mën a def social nañ ñi Soleil Levant Cheikh Ndiaye ak Aziz dañoo mën a def social. Mhm. ñun def social duñ ci jóg. sa ay da duñu jóg ci dimbaliwaate loolu ba ba dee ñun ak suuf la. kenn du ko xam ñun ak kiñ ko séqal ak yàlla te boo ko waxee dootuñu la dimbali boo ko waxee amatuñu ko yow affaire Youssou Ndour ñu jàngal loolu ñun parce que moom bu la mayee alal danaan la man yow yàlla bu la mayee oto ni la man yow yàlla bu la fajee ni la man yow yàlla te boo ko waxee mu bala moom moo ñu jàngal loolu mm-hmm. duñ ci wax ku dee ak sa bàmmeel nag kenn dàqu ñoo def lu baax ci réew mi je pèse bien mooy moo amul kenn ku nekk ci réew mii di fi def lu baax ñu du la tudd nga dàqu ñu ko amul. ndeysaan <laughs> léeg-léeg mbir am ñu daal di ni non dañuy jox diw nangam jox ni nga gis nga gis jojo ni waa waa ñun nag. ñun kon lu ñuy dese. tellement dañuy jox nit ñi ba ñun dañuy fàtte suñu bopp. sama grand frère bii di ma woo demal néegam ay lettre ñu yóbbu sama kër mu xool yi ci gën a urgent mu ni ma Cheikhou bon booy écoute jëlal big ma jël big mu ni ma diw ma ne ah mu ni ma numéro de téléphone nangam nangam nangam moom sama grand frère la ñoo bokk ndey ak Aïda waxoon naa ci benn interview ni sama njaboot bëriwuñu sama njaboot mhm. bëriwuñu lu ma dundal yomb na yàlla ma koy jox yàlla na ko jox ñëpp ay da dinaa dem bay jaay sama oto pour faj ay soxla man maa la ko wax ñaata yoon laa jëndal sama doom terrain pour dencal ko ko jaayaat ko di ci faj ay yëf parce que yaakaar dafa fort muy korite muy tabaski muy leneen ak leneen ak leneen te ñooñu xamuma leen sax parce que alxuraan xamuma leen sax mais comme que xam yaakaar nañ ko ci man rek naa ko def sama téléphone laay yor toog ci ab orange money wala fenn ñi transfert d'argent yi baal leen ma bu dee publicité la di ko def waa ji di ma ree sama wetu kër la nekk day ree bu bëti di jooy may envoyé di envoyé ba fëggatu dem jëliwaat ñëwaat di envoyé envoyé ba fëggatu te xaw ma leen Cheikh Ndiaye bu ma nee kar njool Bonespierre noonu la may woowee ma ne ko oui Bonespierre foo ma ne ko ah maa ngi am yu may dox mu ne ma wóor na ma ci bagage yi nit nga nekk di dox ma ne ko gis nga de damaa am benn kii ku may lijjantil dara loolu laa xam. Mhm. man du ma lu kenn du ma lu kenn. Pawlish Mbaye mii nga xam ni waali dafa jege waali rek sama waali ak ni ma mel ak moom yàlla boole ñu Pawlish rek nga xam ni ndeysaan dafa yëngu bu nekkee ci problème rek du ma am jàmm mm. ci laa yendu fanaan ci yendu fanaan ci di woote di dem di ñëw di dem di ñëw problème bu mujj bi deux heures du matin xaw ma trois heures du matin laa la laa tëdd man maa mel noonu problème bu jàmbur bu ma yëg maa nga ca problème mu jàmbur bu ma yëg xam naa la xamuma la ka nga tooñ xam naa ko xamuma ko damay taal sama oto dem di ko ñaan jekk xanaa dina waar sax ni yow fan nga ma xamee ba may ñaan. Mhm. loolu laa lay njëkk wax xamante woo ak man mais maa lay ñaan. yëg nga ni man dinaa fekkee xeex ci mbedd bi ñaari oto di xeex wala ay ponkal di xeex ma fexe na sama oto fay wàcc di leen topp di leen toppatoo. barki yàlla. di toppatoo parce que fu nekk lañ may woowee nii parce que xam nañu ne li bàyyi Fall wax ce n'est pas vrai mm-hmm. jërëjëf. lay jaajëfal merci maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant merci.